ifu saani alifu ñaareel ci lisim joo bëgg a tasxiir almasjid joo xam ne dollant la du cosaan ci baat bi niki alif yi dem ci ismu faayil ci kaati bi nag daaribun kooku soo dee tasxiir baat ba yuj al waawan dañ koy def waaw nga ne duwayribun ak kuwaytibun kazaanaka noonu maa alif ba nga xam ne al aslu cosaan fii ci moom it lu dañ koo réere ndax ci jaanit la nu ko fekk noonu niki alifu aadam kooku waaw nga koy def nga ni uwaydim soo ko dee tasxiir وكمل المنقوص في التصغير ما لي- لم يحو غير التاء ثالثا كما كمل موتل المنقوص بعد بنيو وانيون في التصغير تي بن كوي تصغير نغا كو موتل وات ما لم يحو فيك بعد با اميول لا قل ما انا اميول رك ثالثا حرف نيتل غير التاء وبوك تكتا سكو باي سكو امي nga bayyi ko dal di indi sa siixatu fu ay lin waaye bu dee ñaar rek manqos ci tasxiir su fekk amul xarafu ñetteel bu bokkut ak taawu tanis kooku dañuy dettali bu ca bu fekkee dañ caa xalafoon dara wàññi ko da ngay koy delloosi kama in jiifirim ndox amul xarafu ñetteel aslan kon te lu doon cosaanam kat mawahun ma un mawahun moo doon cosaanam léegi waaw yi la ñu soppi woon alif ngir fataa gi ko dawlu gannaaw ga xaagoogu ci peggit moo xam sa ñoo bokk maxraj ñu soppi ko foofu xam sa di wax maa un li la ko xamal soo koy tasxiir mbaa nga koy jàngut taksiir cosaan bàyyi delsi nga daal di ni am waahun daal di indi xaa ca mut wala nga ni miyaahun soo koy tasxiir nga ni mu wayhun mu wayhun kama dak maa nag woowee tax andiwul xam sa ga kama in rek maa in maa bi nañu delloo si cosaanam boobu dégg nga nga ni mu wayhun ma lam yaxwi gayra taa saaliha amma bu fekkee ni am na saalis bu dul taa moom moo tax nuy wax bu fekkee taa rek la nag moom bu tee ñu delloo si ko du dëgg idatun idatun ñetteelam xawu tanis la te lu doon cosaanam waadun waada waadaho daal na ko idatan ab daal du loolu arab di wax waadan moo doon cosaan waadaho waadan gannaaw ga ñu soppi baat bi maanaam bu ñu ko dee waadan bil fat ca la ñu koy bàyyi waaye soo ko bëggoon a def wiadan wasnu filan foofa la ñu dindee waaw bu ñu ko dindee remplacer ko xawu tanis ci mujj mooy idatan dégg nga soo koy tasxiir tasxiir day delloo si cosaan ko bu ñu ne kii amul amul saalis bu dul xaawu taanis mafhum bi mooy bu amoon saalis bu dul xaawu taanis ni ki shaaki silaax kon moom du ñu delloo si xarafu cosaan wañu xadafoon waaye comme amul xaawu taanis amul saalis bu dul mutlaqan ni ki ma amul ma un amul saalis mutlaqan ma awa wala mu am saalis waaye xaawu taanis rek la fi taqdiri lim fi saal kon bu tee da nga koy delloo si moo tax nga naan wa aydatun asndal delloo si nga waaw xaa gii nga fi fekk moom du tax nga dindi ko su ko defee mooy ni wardut li ah mun ko ah maa lam yax wa xayra taai thalitha wa man bi tasxirin yusaxiru ktafaa bil asli kal utayfi yaani al mi'taha am na lu ñu tuddee tasxiru tarxiim mooy baat bi nga dikk lu ca doon xarafi ndollante lépp nga dindi ko bàyyi bàyyi fi ay cosaanam su ko defee bu dee nga daal di ko jox siixatu fu aylin masalan ni ki mi'taf muy loolu ñuy wax palto mbubbi tubaab yooyu mi'taf mbubbi yooyu nga daal di ne utayf su fekkee bu bëgg bu la neexee nga ni mu aytif bàyyi ci siixatu fu ayl waaye boo ko bëggee def tasxiiru tarxiim nga ni utayfun su ko defee nag baat yu bari daal di niroo Ahmad ak Mahmoud ak Hamid ak Muhammad ah ak yëpp dégg nga de ak ak boo leen dee tasxiir Humaydun rek ngay daal di wax Ahmad nga ne Humaydun Mahmoud nga ne Humaydun ndax xarafi ndàllante Hamim daal dong moo fi doon min kalimatil hamdi moo doon cosaan soo dindee soo dindee ladul cosaan ñetti xarafay des ci baat yooyu yëpp. Muhammad min alhamdi Ahmad min alhamdi Mahmoud Hamad xaamid ñoom ñëpp xumayd xumayd xumayd xumayd rek nga loolu la ñuy wax tasxiiru tarxiim wa man wa man koo xam ne yu saxiru day tasxiir bi tarxiimin ci tarxiim mooy dindi sawaa'id yi iktafa doyloona bil asli ci xarfi cosaani ni ki baatu tayfun yaani al mictaf واختم بالتانيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كس ما لم يكن بتا يرى ذا لبسي كشجر وبقر وخمس واختم متلل تاو تانيث ما صغرت لبلو تسخيرون من مؤنث تي مؤنث وخان عار برفلو تي هاو تانيث لثلاثين بثلاثي كسن وعين وأذن غني سنينة أذينة عيينة كوك نانكو متلل هاو تانيث لأن التسخير يكسب الكلمة صورة صغر ها si- fa- فلا بد boo nee rajulun kenn du ci xamee tuut waaye bi nga nee rujaylun dafa mel ni danga ko andil sifa sigar ni rajulun saxirun loolu la niru su ko defee baat bi jaamit la woon waaye léegi bi nga ko tëjee tasxiir dégg nga dugal nga ca maanaam sifa te sifa nag foofu góor ak jigéen waruñu ko bokk kon da nga foog nga ni rujaylun bu dee mu annas nga ni uzaynatun bul ni uzaynun rek uzaynatun as nopp uzaynatun as bët ndax yooyu mu annas la yoo xam ne aarin min alaamati taanis te fekk muy salaasi yu nag maalam yakun feeg nekkul yoraañu di ko gis daa leb seen muy boroomug lënt kenn ak mbooloo bëgg caa lënt wala góor ak jigéen bëgg caa lënt ka shajarin wa baqarin shajarun mooy ismu jins la mooy garab yi shajaratu mooy genn gi léegi kon ah soo nee mu annas la ah eh, ku te kon eh, fokk nga indi kii gi ah kon shajarun sujayrun rek ngay wax ndax soo nee sujayratun ñu defee mufrat la te yow mbooloom jën su garab shajaratu mooy genn shajar mooy xeetu garab garab garab rek lépp lépp ci la kon te soo ci defee soo delloo soo indee taagi ngir xam ni mu annas la waaw waaw dañuy defee ànd ak loolu genn garab la loolu lay jaxal ndax sujayratu mooy genn garab kon su dee garab yu bare bul indi taaga li mu doon doon mu annas nil sujayrun baqarun ak baqaratun baqar mooy xeetu nag bi baqaratu mooy benn bi kon it su fekkee benn bi la nil bu xayratun as nag waaye bu dee mboolooy nag nil bu xayrun rek soo nee bu xayratun kenn dootu ko xam xamsun adadu jigéen noonu la am amul taa amul taawu taanis waaye soo ko bëggee tasxiir xam ni limu jigéen la xams soo nee xumaysatun ñu defe ni góor ga doon lim ndax xamsatu rijaalin ngay wax ak xamsu nisaa'in kon loolu xumays ji nga xam ne jigéen nga ca jublu kon moom bu ca indi taa ndax ndax soo nee xumaysatun ñu defe ni ay xamsatu yuy firi limu góor la woon xam nga xamsu mooy limu jigéen xamsatun mooy limu góor xams xamsatu rijaalin wa xamsu nisaa'in du dëgg kon bii mu annas kon bul ko andil taa ndax soo ko defee mu lëntoog mu zakkar sajarun ak baqarun dégg nga bii jamu bu ko andil taa ndax soo ko defee mu lëntoog kenn ki dégg nga wa shadda tarkun doona labsin wa shadda génn na qiyaas tarkun bàyyi gu ñuy bàyyi bañ a andi taa doona labsin te fekk lënt amu ca kooku nag ci mu annas kooku moom néew na fi naka xawsin ñu naan xuwaysun naalun ñu naan nuaylun te waxuñu xuwaysatun te xawsu dañu koy jigéenal ci waxi arab naalu daal mu annas la ci waxu arab comme ayn ak udun kon nag charge la nag ñu di ko tasxiir te andi wuñu taaga ñu nu waxoon ci aynu lañ ko waroon def xuwaysatun mooy qiyaas waaye xawsu xuwaysu nag nu aylun la arab wax bàyyi leen mooy charge génn na qiyaas tarkun bàyyi taa doona labsin te fekk lant amu fa melul na xam xamsu nag sajaru nag wana dara néew na laxaaqu taa jokkuk taa fi maa ci loo xam ne kasara dafa gën a bare sulaasi yéen sulaasi kasara gën a bare kooku feelu xalaba la moo tax fa ñu di ko def faala bil fat da kasura bare na waaye soo bëggee ni maa ko not ci bare kaasartuhu barente naag moom notante naag moom ci bare fa kasartuhu ma gën koo bare kon kasara rek ngay wax dootoo ni kasura soo ne kasura laasim la feelu xalaba mutaaddi la kon fe- feel bi feelu xalaba fii maa ci la nga xam ne kasara gën naa bare sulaasi yam sulaasi kooku néew na ñu di ca jokkataa ni ki xuddaama ji firi kanam dégg nga kooku xuddaam ñaari daal yu ñu li daxa kooku lu doon xiyaasam kay alifu kii gi boo ko xasafee rek doo ci dellooti doo fi indi dara kon xuddaam ku day diim rek ngay wax waaye ji nga ko ëpp na sulaasi yi te ñu ne ku day diimatun loolu dégg nañu arab wax ko muy tasxiiru xuddaam ku day diimatun te ku day diimun rek moo doon ndax moom dafa ëpp ñetti xaraf moo tax mu ne wa wa nadara néew na ci jëfandikoo la xaaqu taa jokkuk taa gi nu waxoon ne dégg nga da nga koy xasab maanaam sulaas yi lu moon moom la nu génne waaye jokk taa gi nag néew na ci fi maa ci la nga xam ne kasara gën naa bare sulaas yi ni ki xuday diimatu wa saxaru shuduudan alladi lati wa zaama al furuu minha taawati tasxiir tasxiir kat na nga xam ne moog tafsira yam kooku min xawaasil muarab bi min wala bu la neexee nga ni min xawaasil mutamakin mutamakin mooy muarab rek lisim ju ñuy wax mutamakin mooy ju ñuy liraab waaw xayru mutamakin mooy ju ñuy binaal nee na néew na nag xa tasxiir nag ci cosaan xaasa la ci lisim ju ñuy liraab waaye lisim yi ñuy binaal waru ci woon a bokk ismu mawsul yeeg ismu ishaara yi waruñ ci woon bokk waaye teewul am na ci shuzuuzan ñu dégg ko tasxiir ci mawsul yi laziig latiig lazina yëpp dégg nañ seen tasxiir dégg nga ñuy wax lazaya ci lazi xam nga wax jàngoon ngeen ko tasxiiru za ci lazaya za itam ñu ne zaya waaye nag ba nga xamee ne tasxiiram génn na xiyaas ndax binaal gi ay way ñu ñu ñu soppi xaayida tasbiir ga dañu daan dàmm njëlbeen ki yii ñoom kenn du dàmm seen njëlbeen lazi suñu ko su doon xiyaas ñu lu zayyun ngay wax waaye na nga xamee ne tasxiiru mu- mabni génn na xiyaas su ko defee ñu jox ko siqa gu génn xiyaas bàyyi fa fataaga nga ni lazaya dàmm gan ko xañ nga soppi alif goo ko remplacé ca mujj moo andi la zayya waaye lu zayyun moo ci doon qiyaas bu fekkoon lu ñuy liraab la lati noonu ñu naan la tayya za ñu naan zayya dégg nga ma al foroya ànd ak seeni banqaas la zeeg la la zee la teeg la zinaag la taani ak laati dégg nga laati ma al foroya min ha bokk na ci faru yi taa ak ti ismu ishaara taa far uzaala ndax mooy mu annasam ñu naan tayya
النسب يا أنك يا الكرسي زادوا للنسب وكل ما تليه كسره وجب نانا زادوا دولي نانيو للنسب بور أسكن nañu ko dollil ca mansuub ilayhi baat ba nga xam ne moom la ñu war a askane dara jëme ci la lisim booba ca la ñuy dolli yaa an ka yal kursi yi yaa ju mel ne yaa gi ñu doll gi nekk ci baatu kursi yi kursi yu yaam googu da koo judduwaale moom kenn dolliwu ko ci sax noonu la baat bi dikkaale waaye nag noonu lay mere ci dañu koy sàddar te ca mujj ga ay xaraf dawlu ko dégg nga la ko jëkk di kasara wa kullu ma talihi wa kullu ma talihi lépp loo xam ne yaaja dafa topp ci loola kooka wajaba kasruhu kasraam wajaba war na ni ci seenu kursi yi wa mislahu mimma xawaaxu xdif nee na waxdif xadafal yaa an mislahu fi kawnihi mushaddadan mimma xawaaxu ci la ko amee loo xam ne dafa am yaaguñu sàdd mu mujj ca soo ko bëggee askane jëm boo bëggee def ko mansub ilahi da nga dindi googa yaa moom door a indi yaagu bees gi lu mel ni lu mel ni ki shafiiyun da ngaa bëgg shafii mujj na nekk alamu ak nit yaa u nasaba ngi ci googu nasab bu jëkk la woon ndax maamam ji tudd Shaafi' lañu ko askane woon jëme ci léegi nag nga bëgg ni fulaanun shaafi'iyul madhab nga ni shaafi'iyu ji ngay war a andi ni shaafi comme mansuubun la ila shaafi'iyi kon shaafi'iyi mansuub ilayhi nañ dindi yaa xam muy genn yaa waaye kenn du bàyyi yaa yaari yaayi nasab ci benn baat nga naan shaafi'iyun loolu duñ ko mooy waxdif xadafal mislahu yaa ja yam ak moom doon yaaw mansuub mimma xawaahu ci la ko amee nañu ko ca dindi wama wa taa taaniis naka noonu it na nga xadaf taawu taaniis ca la ko amee makkatu soo doon askan jëme ca taagi day dañ doone makkatiyun donc déedéet doo ko ca ba ndax soo nee makkatiyun muy turu muzakkar da nga bëgg a jigéenal baat bi ëllëg bu fekkee ki ngay askan jigéen la te kon doo doo mën a wax makkatiyatun di boole ñaari taayi taani ñaari taaniis ci benn baat kooku kon du am moo tax ñu di ko dindi rek mu di su su ko defee nga naan makkiyun ak makkiyatun aw maddatihi wala maddam goo xam ni maqsuur la dañu koy dindi maw maddu taaniis boobu moom it dañu koy dindi bu dee maqsuur amma bu dee mamduud moom danañ ca dikk bu dee maqsuur ni ki xublaa maanaam kooko dafa ñeenteel moom it dana ci dikk maanaam wax ni ñaari anam dana ci aju waaye su fekkee maqsuur la lu mel te am loo ñaareel ba sukkoonul ni ki xubla wala mu ëpp sax ñeent ni ki xubaara alif gi dafa juróomeel kooku maqsuur boobu da ngay neen xubaari yun loolu ngay wax mu ne nag mu ne aw maddatahu mu ne laa tusbit bul saxal taani ta taanisin aw maddata taanis ma ni la nag maddu al muraadu bihi al maqsuur wa al mam wa al mam wa amal mamduud fa sa yaati in anna axkaamaha ka axkaami tasniyati wal jam ci lan lañ koy xalboom dañ koy bàyyi ca cosaan laam ñaari anam dana ca daganam comme ni passé woon ci baabu tasniyati wal jam wa in takun su nekkee nag alifu maqsuur gi tarbau dafa ñeenteel za saanin lisim ji borom xarafu ñaareel woo xam ne sakana dafa sukkoon niki xubb laa kon alifu maqsuur googu ñaari anam dagan na ca mooy fa qalbuha qalbu ko waawan wa xasbuha ak dagg ko rek ni xubliyun yëpp xasanun lu rafet la fa qalbuha dégg nga waawan te moo gën rafet nag xasfuha xasan yëpp rafet waaye qalbu bi moo dàq na li subhi hal mulxiqi wal asliyi ma laha walil asliyi qalbun yuctama li subhi ha ñeel na alif gënneru alifu taanis te sax dugg taanis al mulxiqi bu yéegal wasnu ci morom ma la ni ki garab gu tudd arta arta ismu shajar arta maanaam ni ki arta turu genn garab nee ñu ñetti xaraf yu jëkk yi ku ne xam na ni asliya lañu hamsa geeg raa geeg taag bu mujj gi nag noonu la ko arab fekke waaye naxwi yoone yi ñoom da gannaaw am na yetti xaraf yu cosaan te ñetti xaraf bu ko baat xasee mat rek cosaanu baat mat na ko kon alif gi mujj noonu dañu ko cee jokk ñu nasalu ci seen xel ni lil ilxaaq bi jaafar dañoo bëgg lisim ji nekk rubaa yi moo tax nde li tax nag ñu ni alif gi zaida dana wax ni ñuy xamee ziyaada suqutuhu fi tasrif dalilun ala ziyaadatihi te dañu naan jildun maruutun arta maruutun maruutun la ñuy wax lu ñu def arta su ko defee kon mu ni kon moom it laxaa ñeel na ko maa laxaa la ñeeloon gaas borom madd gi nga xam ne ñaareelam dafa sukkoon te mooy qalbu alif ga waaw wala dagg ko arta moomu kon mën nga ne artawiyun moo gën rafet waaye mën nga ne artiyun moom la ni li subiha ñeel na alif ga niru tanis ga nga xam ne al mulxiqi gu yegga yéegal wasnu ci morom ndax dañu ne arta alif gi dañ ko ci dolli ilxaqan lahu bi jaafar jaafar arta ñoo tolloo ci wasnu ñu ne googu kookoon ay attee mooy attee bu alif mooy attey alifu tanis qalbu waaw te moo gën rafet wala nga xalal yëpp a dagal walil wa yu'tama des na des na tànn dégg nga qalbun ab qalb nag moom la ñuy tànn lil asli yi ñeel alif ga nga xam ne moom dafa di cosaan ni ki alifu malhaaji firi ab fowkaay cosaanam waaw la woon min al lahwi nga tëgg ko mafalun muy rubaayu te ñaareel ba sukkoon na nga ni malhaa kooku nee na waaye alif gi dafa ñeenteel ba tey nee na kon dañu li ci gën qalb nga ni malhawiyun moo gën moo gën nga ni malhiyun marmaat marmawiyun moo gën moo gën nga naan marmiyun dana ko tuddaat kazaaka bil manquusi xaamisan usil naka naka na usila xadaf nañu yaagoogu usila bereef na ko maanaam xadafees na yaaga kazaaka comme ni ñu waxoon ni ko ni ñu doon xadafe yaa dégg nga yal manquus naka noonu moom itam dañu koy xadaf su fekkee ni dafa ñeenteel danañu ko xadaf maanaam xaamisan dafa juróomeel waxuma ñeenteel lu mel ni alifu Mustafa wala mustadi ñe juróomeel mbaa lu ëpp juróomeel dafa juróom benneel ni ki mustadi dégg nga wala mu juróomeel ni ki muctadi nee na kookoot dañ koy dindi nga ni muctadiyun wala mustaaliyun waaye doo wax muctadawiyun ak mustaalawi déedéet ذاك يا المنقوص خامسا حال كونه خامسا في اللهو في الكلمة كوكو دنكو يا حذف والحذف في اليا رابعا أحق من قلب لأن يا نكسفك يا دفنين تيل حذف جموجا قلبك وعيد قلبك دغن لمن قاضي وهن قاضي يا دفنين تيل مو جنا رفض قاضي وعلولو دغن وحتم لورلا قلب ثالث قلب xarafu ñetteel qalbu nag mooy mubtada nga ne wa qalbu saalisin qalbu sob wëlbati qalbu xarafu ñetteel yaxinnu woo xam ne day feeñ kooku xat mun lu war la moom kenn du ko kenn du ko xadaf dégg nga kooku kenn du ko xadaf moom moom saalis bi ni ki fataatay xarafu ràggam alifam dafa ñetteel kooku soo doon askan jëme ca fata wi yun ngay wax nawa turu dëkk la sooy askana jëm ca nawa wi ngay wax limaamu yaxya loolu mooy askanam dëkk bu ñuy wax nawa la dëkkoon nawa turu dëkk la ñu askana ca limaamu naw yaxya ñu ne yaxya nawa wi nawa وأولذ وأولذ وأولذ القلب انفتاحا وفعل وفعل عينه مفتح وفعل ماسكينا ينتقوا وأول من قال ذا القلب بروم قلبك مبانغني ذا القلب قلب بي سويبو غني وأول من قال ذا القلب قلب جين وخ nan ko méngale infitaaxan ak fata man nga neet wa awli méngaleen zaal qalba bii qalb zaal qalbi maanaam mën nga ko firee borom qalb nga xaaj zaaji di ismul ishaara bi maanaa saaxib nga dégg nga muy mudaaf ak mudaaf de nga ni wa awli méngaleen zaal qalbi borom qalb gi xaraf yi ñu qalb nan ko méngale infitaaxan yaani fatxan faqad zakara linfitaaxa wal muraadu al fatx dégg nga wala nga ni wa awli méngaleel zal qalba gii qalb muy ismul ishaara za bi maanaam saaxib wala ismul ishaara lañ ko ci jàppe lafz bi moom benn la li ñu wute mooy su dee saaxib da nga naan zal qalbi boroom qalbu gi ni ki mu maase fii su fekkee ismul ishaara la da nga naan zal qalba qalbu gii na nga ko méngale fataa na nga fataa la ko jëkk ni ki qaadi gis nga ba nga bëggee qalbu xaraf wa da ngaa daal di soppi kasra ga wàcc ko def daat def def fataa nga ne qaada wiyun ndax lu tax soo ko bàyyee yaa ji kenn duñu tëb tëb ni direct ci seen qaayida ni yaa ji lañu qalbu waaw déedéet fukk ñu jaar fu ñu ne yaaga dañu ko soppi alif walbatiku alif nanguwul kasra ñu door ko soppi waaw fokk lañ lañ koy jaari maanaam qaadi soo fataa mujj ga xarafu ràgg maas te la ko jëkk fataa ñu soppi ko alif mu daal di nekk qaada nga bëgg caa jokk yaawu nasab te yaawu nasab la ko jëkk dañu koy kasra te alif nanguwul kasra ñu xal bu ko waaw gis nga foofu la ñu koy jaare ñoom de ci seeni tàndale rek noonu la ñu fekk arab di ko wax waaye naxwu lépp tàndale la ci anam goo xam ne soo ko déggee ne ah noonu kat jaadu na noonu la war a nekk foofu la ñu koy jaare ñoom ci seen jàngale ànd ak ni qaad qaadaw yi rek la ñu déggoon arab wax ko ñoom ñu naan wa faalun wa failun wa failun wasnu failun soo cee soo dee askan jëme ca ci failun ni ki namirun turu am segg namirun turu giir ci arab bani namir sooy askan jëme ca fail dégg nga wa fuil ni ki duil turu géer la ci arab yooyu iftax aynahuma na nga fataa seen ayn xaraf wa ca digg ba nga ni namariyun nisbatun ila namirun wala nga ni dualiyun nisbatun ila duilin dégg nga naka noonu wa fiilin ni ki ibilun soo bëggee askane jëme ca ibaliyun waaye dooni ibiliyun lu tax kasaraat yu ànd ak yaa dafa diis soo bëggee ni ibiliyun ñetti kasra ngoog yaa dikk gu te kasra mbokk yàlla baat bi dafay diis torop ñu woy fale ko fata ibaliyun waqiila wax nañu it fil marmi yi wax nañu ca marmawiyun kooku gaat tuddoon nañu ko ca ba mu naan walil asliyi qalbun yu'tama waaye teewul marmiyun moom itam kon xadaf yaaw nasab gi noonu di wax deeti wax marmawiyun dégg nga te loolu nag moo gën sax waaye daganal nañ ci moom marmawiyun waxtiira tànn nañu fi isticmaalihum ci seen jëfandikoo ci baat bu mel noonu ni marmiyun moo gën marmawiyun dégg nga wa naxwu xayin fatxu saanihi yajib wa yajibu dana war fatxu saanihi maanaam wa naxwu xayin lu mel ni xayin nga xam ne yaaguñu sàddaga wenn xarafa ko dawlu xayi ak lay ak tay kooku moom fatxu saanihi fataa xarafu ñaareelam yajibu day war nga ni xaya su ko defee yaaga fata dawlu ko ñu ne dañ ko soppi woon alif nga ni xayaa alif yaaw nasab topp ca te yaaw nasab dañuy kasra la ko jëkk te alif moom du laal xaraka ñu soppi ko waaw ne xaya wiyu ñu ni waaw te lu tax bàyyiwuñu ko ci yaa boog ni xaya yeyun ñu ne a loolu wóor na la gisal diis gi ci ne suñu bëggoonoo xaya yeyun